mënul am ma xas ko. Hmm. président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar nit mënul am ma teg ci seen der naka noonu. Hmm. te itam APR loolu mënul nekk xam tax parce que dama ànd ak ñoom ci njëkk ak teraanga te defuñu ma lu tax ma di leen ŋàññi tey. mais yaa ngi naan ko bàyyil ay pexe. waaw loolee lu muy tekki. waaw ah, li muy tekki leen rek la mooy boo bokkee ci réunion président yore liste di joxe kaddu ku mu joxul kàddu doo wax. Hmm. waaw luy ndeyu man ma wax ba pare. am ku jóge ca làng ga te ba may wax nekkul ci biir salle ba di Farba Ngom mu ñëw ni ñu ko Abdoul Aziz Dey jël na kàddu ba ni dafa bëgg a nekk candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar pour l' élection présidentielle du 25 février 2024. mu jóg te kenn joxu ko parole te président Macky Sall mu ngi yor mi ngi yor bigam di présider réunion. Mhm. mu jóg ni ñokket ni ma eh. lu tax yow nga naan da bëgg a nekk candidat yow yaay kan banaan naan da ngay bëgg a nekk candidat président Macky Sall ni ko far farba bu ñu fontoo toogal fi nga toog Abdoul Aziz lu ko neex mu wax ko. loolu lu muy signifié ci mais loolu mooy audace boobu farba ku sañ loolu boo weeteeg président sañ lu ko raw. Mhm. moo indi pexe kooku bu fa jógee te farba Senghor yamul farba Ngom yamul foofu. daf ma bàyyi ba ñu génn réunion bi jeex ba réunion bi jeexee laa weesoloog président Macky Sall ci buntu salle des banquets mun ma Abdoul Aziz danaa la recevoir ndax lan ndax waxuma sax li nga teg sama loxo léegi waaye yow candidat nga à la candidature te réerewu ma la kon nag danaa la recevoir waaw ma génn Farba Ngom ni ma waaye Abdoul Aziz yow bu ma nekkoon ci salle bi doo fi wax naan da ngay nekk candidat il faut retirer li nga wax ah, yow mënoo gagner bureau de vote ma xam ni barab ba ma ko waxee. foofu du tontu bi ndax man institution de la république dama ko war mal gis nga ni ma war warmaalee institution noonu laa war ni ma war warmaalee jumaa ba duma ca dugg te sumbiwuma sama dàll te su ma fa duggee dafa am nu ma fa war a toogee ndax loolu la loolu la charte jumaa tëral. Mhm. gis nga ni ma ko respecté noonu laa respecté bépp kuréel ak bépp pinc boo xam ne nii penc république la kon donc foofu du tontoom xëy na sax bëggoon na ko fa tontu. ba mhm. jàppante sax am fa ñu may nu àddina ma ni pat ba tontu jotee laa ko tontu boo boole ko ca la ma baaxee ñi ma bokkal groupe grand groupe républicain ba ma ko defee tam wóoroon na ma ni dana.